بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa 'allamtanaa wa zidnaa 'ilmaa ammaa ba'du fassalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci suñu jotaay yi nga xam ne ñoo koy bokk ak yéen di ci jàngat turu di turam yu rafet yu màgg yi <coughs> suñ bi jàlloon suñ jotaay bi jàlloon waxtaanoon nañ ci ñeenti tur yoo xam ne dañuy wax ne dafa wane màggaayu yàlla subhaanahu wa taala ak ndar gum ndar képp ay jaamam moo xam ci suñu jamono lañu suñu existence wala ci fu ñu mën a nekk ci àdduna bi voilà fu ñu mën a nekk ci àdduna bi wala ci jamono ju ñu mën a nekk ci àdduna bi lenn jiitu ci yàlla lenn mujj ci yàlla subhaanahu wa lenn tamit ump ci yàlla subhaanahu wa taala ba tax na bu fekkee nit ki xam na loolu dina xam ne kon suñu dund lépp ci yàlla la dellu suñu dund lépp ci yàlla la sukkandiku ndax moom mooy alxayu mooy alqayuum dundam subhaanahu wa taala moo dund gi nga xam ne amul fu mu tàmbale amul fu mu yem bi nga xamante ne bii ci suñu suñu lépp ci moom la sukkandiku loolu lañ jàngatoon ci al awwal wal axir wal yàlla subhaanahu wa taala jiitu gum jiitu lépp xam ne amul fu mu tàmbale te loolu day wane ne lépp ci moom la jóge ndax moom yàlla subhaanahu wa taala moo amal moo sos lépp lu am moo tax mu wax ne badiu samawati wal ard wa ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yàlla suñu boroom subhaanahu moo sos asamaan yi ak suuf sos goo xamante ni amul ci lu mu jóge maanaam day sàkk-sàkk boo xam ne amul matière première boo xamante ne ci lay jóge subhaanahu wa taala wa ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun buy wala muy dogal mbir daf koy wax nekkal mu nekk kon yàlla subhaanahu wa taala suñu am ak amuk jamono jépp ci moom la jóge wérul ne jamono ji dafa jékki-jékki rek amal boppam ndax lu amul woon nekk lu néant loo xam ne existé wul woon mënul amal boppam te mënul jékki-jékki rek am ci loo xamante ne hasard la loolu mënul nekk faaw buy am dafay am loo xamante ne bi moom mooy causé moom mooy sabab amam loolu nga xamante ne bi moom moo sabab amam du lenn lu yàlla ndax mu amee ak organisation bi ci nekk day wane ne du boo xamante ne dafa jékki am ci ay phénomènes yoo xamante ni moo am rek ay évolution yoo xam ne moo am wala ay mélange yoo xamante ni mélange yoo xamante ni chimique la yu am mu explosion bu ci jógee loolu daal di indi mbindeef yi loolu hasard la boo xamante ni bu amoon organisation bi am ci àdduna bi ak ni àdduna bi tëddee du doxee noonu àdduna bi ni mu tëddee ak limites yi fi nekk ak tëralin yi fi nekk day wane ne am na koo xamante ni bi moom moo supérieur loolu yëpp te moom moo ko organisé noonu moom moo ko tëralee noonu benn mbindeef bu nekk benn être bu nekk bu nekk ci àdduna bi ak sa façon mbindin sa façon dulun bu spécifique bi nga xam moom lañ la jox sa environnement bi nga xamante ni moom lañ la jox ak jagleel yi nga xamante ne bi moom lañ la jox faculté yi ñu la jox ak euh, capacité yi nga xamante ni moo nekk si sa jëm mu méngoo ak yow say soxla ak nga xamante ni moom nga war a dund kenn ku ci nekk ñu am fuñ la appal ci sa dund féetale la foofu nga féete woo loolu am noo mel ci sa jëmm sa beneen moroom ci mbindeef yi du ko mel kenn ku ci nekkoon ñu jagleel la lenn nga jagoo ko nga gis ne njaxas amu ci dañax dañaxi amu ci lépp lu leer la lépp lu structuré loolu dafa mënut a jóge ci hasard kon dafay wane ne am na koo xamante ni moom moo jiitu koo xamante ni bi lii fi nekk ci mbindeef fii coobareem la bëgg-bëggam la moom moo ko sàkk tëralee ko noonu bu nit ki xoolee ci àdduna bi ni tëddee nga xam ne àdduna bi mënul amal boppam te tamit mënut a jékki-jékki am ci loo xamante ni amul benn sabab amul benn cause ci hasard ni jékki-jékki am loolu mënul nekk amul sax sens loolu lañu yàlla tënkal ci am xuliqu min gayri shay'in am humul am xalaqu samawati wal arda bal laa yuqinun mooy ne imma ñu sàkk ñu ci lu dul dara ci jékki-jékki rek néant boo xam ne amul woon jékki-jékki existé ci hasard wala ñoom ñu sàkk seen bopp ñaari ñaari thèse yëpp benn wéru ci mënuñ jékki-jékki ci hasard rek ñu am hasard mënu ñu fi indi organiser suñu dund mbindeef ku nekk ak place bi mu la teg ci su ci dund bi kenn ku nekk ak cër bi mu la fi jox dara ci jaxas amul ci mbindeef yi kenn ku ci nekk da nga nekk être à mënuñu sàkk suñu bopp parce que bu fekkee amaguñu mënuñu sàkk ñu tuddee ak dawa mënuñu sàkk fekkee ne amuñu ndax ku amul mënta sàkk boppam loolu mënul nekk léegi kon li muy tekki mooy ne faaw kon am na koo xamante ni moom moo ñu sàkk kooku mooy al awwal mooy ki jiitu kooku moo jiitu lépp moo fi nekkoon laata lenn def fi lenn di fi nekk mooy al awwalu alladi laysa qablahu shay ci xadis bi ñu jàngoon keroog bi waaye man ñëwee di laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ji'na nasaluka an awwali hada al amr def ne leen kaana allah walam yakun shay'un maahu wala walam yakun yàlla moo fi nekkoon leen nekk fi woon ak moom yàlla moo fi nekkoon amul lu ko mës a jiitu kon yàlla moom moo jiitu ginnaaw bi mu sàkk mbindee fii kon ci loolu la xamee ne kon lépp ñun ñëpp ci moom lañ jóge suñu borom subhanahu wa taala moo ñu amal moo ñu sàkk eh, ci moom tamit la ñuy mujj moom la ñuy dellu ndax bu lépp jeexee moom moo fiy des te itam lépp ci moom lay dellusiwaat wa ila allahi tasirul umur wa ila allahi turjaul umur kon ci moom la lépp di dellu ndax moom mooy al axir moo tax mu ne wa ila ila rabbika al ci yàlla la lépp di delluwaat ci ci yàlla subhaanahu wa taala la lépp di jeexee voilà loolu bu fekkee wax nañ ko ci wàllu nekkin beeg am am bi loolu lu wér la waaye bu fekkee wax nañ ko tamit ci wàllu sens ci ne boo xoolee ci loo mën a xool rek ci yàlla lay mujje ci yàlla lay lay la lay jëmale kon moom mooy tamit ki mujj mooy ne lépp loo xool ak lépp loo mën a gëstu fi muy mujjee résultat bi fi muy mujjee dëgg-dëgg mooy ci yàlla la lay delloo voilà kon loolu tamit mooy tax kon nit ki war a dindi intermédiaire yi nekk ci digganteem ak boromam yi fi nekk yëpp ci diggante sa borom te dem ci yàlla subhanahu wa taala directement loolu tamit dañ koy jàngat ci al awal bi nga xamante ni moo fi nekkoon laata ay sabab laata àdduna di fi nekk laata matériel yi fi nekk mu sàkk matériel yi boobu indi ko fi moom subhanahu wa ci jubluwaay yu tax moo teg ko fi kon yow boo ñëwee moom moom nga xam ne moo jiitu sabab yi ak matériel yi fi nekk moom nga war a def sa objectif def ko sa jubluwaay mais waroo yi mu sàkk di ay mbindeef yoo xam ne éphémère la di dox sa diggante ak sa borom subhanahu wa beneen ba ci des mooy az-zahir wal batin mooy yàlla féete gi mu féete kaw ak jege gi mu jege jaam ñi ñenn ñi di feeñ gu mu feeñ ak nëbb gu mu nëbb waaye feeñ gi waxoon nañ ci feeñ gi ne feeñ goo xam ne dañ koy gis ci suñu bët ndax euh, yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ne ci àdduna bi suñuy jëmm amul kàttan ak mën-mënu mën koo dekk pour gis ko subhanahu laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabiir moom yàlla subhaanahu wa taala bët doomu aadama fii ci àdduna mënu koo gis fii ci àdduna bëtu doomu aadama mënu koo gis te loolu leeral nañu ko ci ay bërëb yu bari ci alquran kon bu ñu waxee feeñ gi du feeñ goo xam ne feeñu gis la li ñuy gis ay mbindeef yàlla du jëmmi yàlla yàlla moo sàkk mbindeef yooyu mbindeef yooyu du ñu yàlla sàkkeefu yàlla la subhaanahu wa taala kon lu ñu mën a tegtaloo ci mbindeef yooyu mooy xam màggaayu yàlla xam dayob yàlla xam xereñub yàlla xam kàttanu yàlla waaye du mbindeef yi ñuy gis ci seeni jëmm ñoom ñooy yàlla subhaanahu wa taala deesul jaawale mbindeef ak yàlla bi nga xam ne moo leen sàkk mbindeef ak doyadi donc moo nekk ci moom doyadi googu dees ko jël mu ko di ko melal yàlla wala ñu ko koy askanale waaye tamit li muy kawe kawe tim jaamam ñi yëpp subhaanahu wa moo jege jege xam seen lépp amul lenn loo xamante ni ci seeni mbir mën na ko nëbbatu moo tax suñu borom subhaanahu wa taala wax ci ñi nga xam ne dañuy jaamu leneen lu dul yàlla eh, ba noppi di wax ne ñooñu ñoo leen di intercéder ñoo nekk seen intermédiaire seen diggante ak seen borom mooy ñi li mu wax ne wa yacbuduuna min duni illahi ma laa yaduruhum wala yanfacuhum wa yaquluuna haulaai shufacauna inda allah qul atunabbiuuna allah bima laa yaclamu fi lsamawati wala fi l ard subhaanahu wa taala amma yushrikuun ne suñu borom subhaanahu wa taala bi mu waxee yi dañuy jaamu leneen lu dul yàlla di jaamu ay mbir yoo xam ne amalu leen lor amalu leen njariñ seeni lor ak seen njariñ jógewul ci loolu ndax mu ngi jóge ci li yàlla di dogal ci ñoom ndax dogal moom ci yàlla rek lay yàlla rek moo am sañ man-man boobu kooku am cër boobu nag moom rek lañu war a jaam waaye ñoom dañuy wax ne du ñoom xam nañ ne kii du yàlla ji nga xam ne moo leen sàkk yoral leen dund yorol leen dee yoral leen seeni ndogal waaye nag dañuy jaare ci ñooñu pour ñu àggale leen ci yàlla yàlla subhanahu wa taala ne soxlawul kenn di ko jottali leen lu jóge ci ay jaamam atunabbi'uuna allah bi maa laa ya'lamu fi samaawaati wala fi l-ard ndax am na lenn loo xam ne ci asamaan ak suuf lu yàlla ump la ji lu ump yàlla la ci jaamam ni yàlla ump la ko ci jaamam ni ba muy soxla am ñeneen intermédiaire yuy dem di jëli ji di ko indil yàlla di ko xamal lépp lu jóge ci jaam ñi bàyyi ko ci ñoom jëm ci yàlla yàlla xam na ko ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu saalihu yarfa'uhu jëf yi baax yi ñuy def dañ ko yëkkati mu jëm ci moom kàddu yu baax yi ne ñi di wax dañ yëkkati ko di jëm ci moom kon yàlla subhanahu wa xam na suñu lépp xamal na ko boppam boole nañu tamit ak ay malaaka yoo xamante ne lépp lu ñuy def ni ñu koy xam wa inna alaykum la xaafidan kiraaman kaatibin yaalamuuna ma tafaaluun mooy ne li ñuy def ci lu baax wala lu safaanoo lépp yàlla boole na ak ay malaaka yoo xamante ne bi xam na ko ci ñun te ñu ngi koy bind di ko saytu kon lépp loo xamante ne jaam ñi ngi koy def suñu borom subhanahu wa taala ump ko ba tax na kon jege nañu xam lépp lu ñu nekk moo tax loolu bu fekkee seetu nañ tur yooyu bokk na ci liñ ciy jàngee mooy nit ki def yàlla mu nekk jubluwaayam eh, xam ne tam yàlla mi ngi xam léppam dara ump ko ci yàlla yàlla ko jege jaamam ñi jaamam ñi la ci xam lépp loo xam ne ñu ngi ciy nekk ci dégg ko ci xam ko alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim moo ne suñu boroom subhaanahu wa lépp loo xamante ne jaam ñi ñu ciy nekk mi ngi koy xam kon ànd gi muy ànd ak ñoom daf koo leeral ne ànduk xam li ñuy nekk la soxlawul moom suñ suñu boroom subhaanahu wa taala di nekk ak jëmmam fii ci àdduna bi ngir mën a xam ne li ñu nekk loolu ñàkk xam dayoo yàlla ak kàttan ak mën-mënu yàlla subhaanahu wa moo koy waral doomu aadama ci eh, gàttu xam-xamam ak ak eh, bi nga xamante ne nekk na ci moom mooy tënku ak néew doole gi nekk ci moom ci ay ay cëram dafay tax fu mu nekkul du fa mën dox mën du mën a xam lu fa nekk fu mu nekkul ci jëmmam du mën a xam lu fa nekk loolu nag boo ko nattee ci yàlla da ngay jum moo tax kon soxlawuloo di wax ne yàlla mi ngi fii ci àdduna bi di jaxasoo ak jaamam pour soog a a xam li nga xamante ne jaam ñi ñu ngi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala kon xam na jaam yi liñ nekk te itam dara ump ko ci loolu loolu moo tax kon bu fekkee xam nga jege gi yàlla jege jaam ñi war na tax kon ngay bàyyi xel sa borom ci ne amul lenn lu la gën a mën a dégg yàlla amul lenn lu gën a mën a gaaw wuyu la yàlla amul lenn lu la mën a xettali comme ni la yàlla di xettali yàlla rek moo la mën a xettali nit ki am gëm-gëm boobu moo tax yonent bi alayhi salaam yàlla ne ko ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li wa liyuminu bi laallahum yarshudun bu ma la sama jaam ñi laaje nee leen moom yàlla subhanahu wa taala qaribun fa inni qaribun nee leen moom yàlla subhanahu wa taala ku jege la ujibu daawata daai ida daan nee na moom yàlla dafay wuyu wootewu ki nga xam ne mi ngi koy wo saaba ko wooyu ida daani saaba ko wooyu ak fu mën a nekk yàlla dina ko dégg yàlla dina ko wuyu kon jaam bi dafa war am yaqin ci loolu loolu mooy tax kon ay ñaanam ak ay xettalikoom ak ay jaamoom ak lépp mu jëm ko jëmale ko ci yàlla ndax xam na ne saa bu nekkee ci dara yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy gis si lu mën a nekk yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy gis pas-pas boobu bu fekkente ni wér na ci jullit bi bu fekkente ni pas-pas boobu leer na ci jullit bi loolu mooy waral muy fuglu yàlla di bàyyi xel yàlla ak tamit di xam ne soxlawul kenn kuy koy jottali di jëlee ci moom di yóbbu ci yàlla ndax yàlla xam na léppam moo tax suñu boroom subhanahu wa taala wax jullit ñi wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء mooy ne suñu borom xamal la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ko gëm ne leen amul ci lu ngeen di nekk moo xam ci seeni jaamu yàlla la wala jëf li ngeen mën di def du doon na yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy xam yàlla mi ngi koy teewee ci xam-xamam ci déggam ci gisam subhaanahu wa taala mu xamal jullit yi ne leen amul lenn loo xam ne dina nëbbu sa boroom dina ump sa boroom moo xam dafa toll ne pep bi gën a tuuti ci pepp yi li gën a sew ci pep yi doo doo lu tolloog atom mu ne lu ko gën a sax tuuti wala lu ko ëpp du am ci àdduna bi di ump yàlla subhaanahu wa taala amul lu toll noonu wala lu ko gën a tuuti sax la wax lu gën a tuuti atom di ump yàlla ci fa mu nekk na mu nekkee mbiram amul lenn lu ci ump yàlla subhaanahu wa taala lépp yàlla mi ngi koy xam lépp yàlla mi ngi koy gis subhaanahu wa taala moo tax mu ne amul lenn lu nekk ci àdduna bi ak lu mu tuuti tuuti lu ne xam-xamam yàlla bind na ko ci ab téere léppam yàlla xam na ko kon amul luy nëbbu luy ump yàlla subhaanahu wa taala wa ma ya'zubu an rabbika min mithqaali darratin waxul sax mithqaalu darratin daf ne min mithqaali ne kon amul lenn lenn lenn lu mu tuuti tuuti loo xamante ni moom sa borom subhaanahu wa taala ci bu rawatina bu fekkee dañuy wax ne min bi ibtidaaiya la nga xamante ni bi li gën a lu gën a lu gën a tuuti lépp loo xam ne war nañ ko mën a wax pepp sax lu gën a tuuti ca tàmbali ba la gën a tuuti umpul yàlla subhaanahu wa taala waaye mu pour te akit ko ci ne wala asxaara min dalika wala akbar illa fi kon loolu day wane rek xam gi xam ne yàlla xam na ko mbiri jaam ñi seen lépp dara ump ci suñu borom subhaanahu wa loolu kon war na tax yow jaam bi ngay diisoo ak sa borom di jug di julli di diisoo ak sa borom ci julli bi ngay julli li ngay wax yàlla mi ngi koy dégg li ngay nekk ci sa xool sax di ko xalaat yàlla mi ngi koy xam ngay jël say ñaan di ko jëmale ci yàlla soxlawloo di yëkkati sa baat ca kaw soxlawloo di yuux sa kaw ngir yàlla dégg la comme ni ko ñu bari fooge lenn ci saxaaba yi dañ wax ne yaakaar naa jaabir ibn abdillahi al ansaari la dañoo àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam wala mooy abu musa al ashari dañoo àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadis bi nekk ci saxiix dañoo àndoon ak yonent bi salaam di tukki di def bu ñu yégee ci benn tund wala ñu wàcc di di takbir di tasbix waaye di yëkkati seeni baat subhaanallah di wax allah bu ñu yégee wax allahu akbar bu ñu wàccee di wax subhaanallah bi mel noonu yonent bi alayhi salaam day gën a ñu yëkkati seen kàddu yi ci ni ñuy tasbixee ak ni ñuy tuddee yàlla mu ne leen yaa ayuha nnaas irbaacu ala anfusikum innakum la tadcuuna asumma wala aqaa'iba illa inna alladi tadcuunahu samiicun qariib aqrabu min axadikum aw ila axadikum min cunuqi daabatihi yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen yéen nit am leen ñeewent ci seen bop muy yërëm leen seen bop coono bi ngeen di teg seen bopp jaru ko di teg seen bopp jaru ko kon yërëm leen seen bopp ci yuuxu yi ngeen di ndax ki ngeen di woo nekkul ku tëx nekkul koo xamante ni ku fi nekkul la koo xamante ni daa dàqu ci ne leen xamul ci li ngeen nekk gisu leen kon ki ngeen di woo ku jege la ki ngeen di woo moo gën a jege kenn ci yéen loosu bàyyi mam bi nga ni mi ngi ko war bàyyi ma bi mu war loosam ni mu ko jegee nga xamante ni ci wetam la nekk ci kanamam li la nekk nee na yàlla moo la gën a jege noonu kon jege gi yàlla subhanahu wa taala jege jaam ñi loolu day dellu ci màggaayam ak ndar gi ndar képp jaam ñi te loolu ci màggaayu ji moom la jëm moo tax foofu la jaam bi di déggee ñaari tur yoo xam ne dañ koy sof ci tur yi ñu waxoon mooy al aliyul kabir mooy li yàlla waxoon ne xata ida fuzzia an qulubihim qaalu maada qaala rabbukum qaalu alxaqa wa al aliyul kabir mooy yàlla subxanahu wa taala huwa al ali mooy ki kawe kawe gi nga xamante ne kawe ak jëmmam la subxanahu wa taala waaye kawe gi nga xamante ne kawe ak ay melokaanam la mooy li ñu ne. lilladina laa yuminuuna bil axirati mathalu saw wa mathalu al yàlla subhaanahu wa moom la ñeel melokaan ba nga xam ne mooy melokaan bu kawe ba melokaan bu màgg ba nga xam ne lenn ci suufe jegewu ko moom subhaanahu wa waaye tamit mooy ki kawe ci autorité am ci nguuram ci not gi mu not jaam ñi moom subhaanahu wa amul kenn koo xamante ni yàlla dina dogal lenn nga dox diggante ak dogal boobu ne du am loolu tamit day delluwaat ci maanaa al aziz bi nga xam ne dina ñëw ñu waxoon ne boo ko lëkkaleeg al xakim moo lay wan ñaari tur yooyu ni ñuy nekk luy mottalante benn bu ci nekk di gën a wane rafet bi nekk ci sa morom ndax boo xoolee tur yi jàll léegi ni ko yàlla lëkkalee loolu dina ci ñëw incha allah dafay am ne chaque fois boo gisee lëkkale gi di lëkkalewu dafa am léeg-léeg yenn sew-sew yi ci nekk ndax tur yi ñeenti tur ñu wax yàlla tudd na ci commencement suratul hadid waaye ni mu ko waxee dinañ ci ñëw incha allahu taala ci lëkkale gi nga xamante ne bi lëkkalee na ko suñu waroon subhanahu wa taala ci alquran waaye bu fekkente ne seetlu nañ al ak al dafay delluwaat daanaka ci ci yi ñu waxoon léegi mooy ndar képp gi ndar képp jaam ni ci tiim leen subhanahu wa taala ci jëmmam waaye tamit ci màggaayu jëmmam ak màggaayu mbiram ndax bu ñu ne yàlla ku màgg la kabir li muy tekki mooy ku lu rëy kon màggaayu jëmmam subhaanahu wa yàlla rek moo xam nu mu toll yàlla jëmm mënuñu koo daytal xamuñu nu mu toll subhaanahu wa taala màggaayu jëmm borom bi subhaanahu wa waaye tamit màggaayu mbiram suñu borom subhaanahu wa taala ku mbiram màgg loolu moo tax kon huwal kabir mooy ki nga xamante ni mooy ki màgg mooy sax al akbar mooy ki gën a màgg moo tax ñuy wax ne allahu akbar yàlla mu gën a màgg lu mu mën a doon beneen baat bu ci toftalu mooy al mutakabbir mooy ne yàlla dafa rëy dafa rëy ci ne moom yàlla du jum ndax mat ki nekk ci moom dafa nekk mat koo xam ne du juum kon kenn mun rectifier yàlla kenn mun jubbanti yàlla ku ku jubbanti yàlla rek ci jaam ñi yow yaa juum ndax matadi gi yàlla def ci yow ak mat gi nekk ci moom subhaanahu wa taala mënuloo jubbanti yàlla ci lenn lu mën a doon loolu moo tax kon mooy almutakabbir mooy ne lépp lu mu def noonu la amul kenn ku ko mun a delloo ginnaaw ci lenn subhaanahu wa wala nga gàggante ko wala nga jubbanti ko ci leen lu mën a doon melokaan boobu nag moom rek subhaanahu wa moo ko jago moo ko mën a mel kibriya muy nekk koo xamante ne dafa am ak rëy gu nekk ci yow li ko waral mooy dafa nekk ku màgg dafa nekk ku mat moo tax mu rëy subhaanahu wa kon loolu melokaanam la melokaan boo xamante ni jaaduwul ci mbindeef mu koy jéem a mel wala mu koy sax jege mel ndax mbindeef xam na li nekk ci boppam ci li nga xamante ne bi mooy ak suuf li nga xamante ne mooy ak tuuti moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ne wa lahul kibriyaau fi samaawaati wal ard wa huwa al azizul moom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ne dafa am ak rëy subhanahu wa taala te loolu nekk melokaanu mat ci moom te bu ko def jéemoon a melo mu nekk loo xamante ne ay bu rëy rëy lay doon ci moom waaye bu fekkee delluwaat nañ ci commencement suratul xadid li nga xamante ne noonu la suñu borom subhanahu wa te taftalee yi ñu waxoon dafa wax ne huwa al awwalu wal axiru ndax mi ngi ko tàmbale ci sabax lillahi maa fi samawaati wa maa fi ard waaye bi mu ñëwee ci ñetteelu aaya bi dafa xam ne huwa al awalu wal axiru wal zaahiru wal baatinu wa huwa bi kulli cheyin alim bi muy toftale foofu tur yi nga gis ne daf ko toftale ak waawul atf ndax mënoon na wax comme ni mu waxee fële ci jeexitalu suratu alxadid bi mu waxee ne huwa huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawiru lahu alasmaau alxusna foofu indiwul waawul atf gi ndax ay melokaan la yoo xamante ni dañoo méngoo melokaan la yoo xamante ni boo ci dégg boo ko déggee comprendre ko doo dégg ne safaanoon noonu ak yu ci topp wallahu alxaaliqu albaari ul musawiru xam nga sàkk gi mu sàkk ak ni mu fentee jaam ñi ak ni mu leen melalee melokaan boo xam ne moom moo ko taamul boppam ndax yemul rek dafa nekk ne xalaqa fa sawwa yàlla subhanahu wa taala sàkk jaam bi ba noppi daal di koy melal jox ko melokaan bi nga xam ne moom la bëgg mooy li leen wax ci tàmbali bi ci ne mbindee fii ni ñu mel coobare yàlla la du hasard yàlla moo leen melal noonu yàlla jëleen sàkk moo leen jox melokaan boobu noonu léegi bu fekkente ne gis nga kon ni mu foofu noonu ni jëlee waaw waaw ak fi soxlawul ma ko fee def waaye bi mu ñëwee ci woon awalu wal axiru wal zaahiru wal baatin foofu dafa indi waawul atf ndax bu ne bone mooy ki jiitu nit mën na dégg ci ne lu jiitu mënu fee yàgg-yàgg bu tax mu mujj ndax dañuy wax sax naan njëkk ci géew taxu cee mujj loolu olof di wax waaye comme dafa jiitu ba noppi mujj dafa féete kaw bu féetee kaw nga ne ko nekkul ku jege fa mu nekk sori na ba noppi mu jege léegi loolu noonu mu dajale lépp nekk ak mat moo tax kon mu ne mooy ki jiitu te itam mooy ki mujj mooy ki kawe te itam mooy ki jege nga boole loolu yëpp benn borom xam ci borom xam yi tafsir aaye boobu da doon wax ne boo ko jàngatee mi ngi mel ne nit koo xam ne dafa nekk ci dëkk bi. nekk ne moom mooy par exemple maire dëkk bi wala boo nga ne mooy chef de village bi moom mooy imam bi xutba ci jàkk ji moom mooy mën nga wax par exemple euh, benn responsabilité nga ni par exemple moom mooy euh, ki jiite euh, police bi mooy commissaire bi wax bu la neexee ñu exemple lañ ci jublu mu yor ay ndombay baat yoo xam ne seentuuloo woon ne yii yëpp moom moo ko fi yor mooy boroom xam-xam bi ubbee nga ne moo ne moom de mooy chef de village te itam mooy maire maanaam mooy chef de village di maire di imam di mufti bi nga xam ne mooy ubbee ci dëkk bi yooyu mu boole yëpp seen tuuloo ko woon boo la ci waxee benn da nga yaakaar ne ci boobu la am waaye comme yeneen yi ci des ay ndollent la yoo xamante ni yëpp ay ndomboy baat yu nit ki am boo ma la koy wax dama la koy limalee noonu ne la diw moo di nangam di nangam di nangam di nangam di nangam loolu moo tax tamit fii bi mu ñëwee daf ne moom mooy ki jiitu di ki mujj di ki féete kaw di ki jege subhanahu wa taala loolu kon moo tax kon mu waxee ko ci anam boobu ne huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wa suñu borom subhanahu wa taala léegi nag mu des bu fekkente ni wax nañ ci féete gi nga xam ne yàlla féete na ko kaw te am ci nit ñi ñoo xam ne dañ koy dàq yaakaar ne màggal yàlla mooy wax ne yàlla mu ngi fépp te loolu nekk loo xamante ne bi lu doy waar la ndax euh, bu yonent bi alayhi salatu waxee ne yàlla subhaanahu wa taala dafay wàcc guddi gu jot ci xadis bu wér ne guddi gu jot yàlla dafay wàcc bu ñu demee ba ci troisième tiers bi des ci guddi yi mooy boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi des yàlla subhaanahu wa dafay wàcc ba tolloog asamaan asamaanu àdduna waxul ne dafay wàcc ba dugg ci biir asamaan àdduna ma def ne dafay wàcc dafay wàcc ba tolloog asamaan dunia yanzilu rabbuna la wax ila sama dunia suñu borom subhanahu wa taala fay wàcc ba ci asamaan àdduna ila foofu liñ ci nam mooy al namuñ ci ne dafay nekk ci biir asamaanu àdduna tayib wàcc googu comme ni ñu waxee woon ci istiwa biñ ko laajee al malik nit ñëw ne ko arrahmanu ala al istawa kayfa yàlla nee na dafa féete kaw arsh naka la ko féetee kaw alimaam Malik ne tekk ba mu yàgg mu tontu ko ne alistiwa gayru majhul wala alistiwa maalum li nga xamante ne bi moom mooy istiwa muy féete kaw yàlla féete kaw arsh lu ñu xam la waaye li nga xamante ne bi moom mooy alkayf gayru maaqul li nga xamante ne bi moom mooy wala gayru maalum li nga xamante ne bi mooy naka la loolu amee xamuñu ko suñu xel mënu koo jot wal imaanu bihi waajib li war ci jaam bi nag mooy mu gëm ko ni ko suñu borom waxee wa sualu anhu biraa nekk di ko laaj di wax ne naka la loolu demee loolu bidaa la nekkul loo xam ne yonent bi alayhi salaam ak ay saxaabaam nañ ko fi léegi loolu tamit bu fekkee jël ko ko def ko règle ci wàllu mu nuzul muy wàccuk yàlla subhaanahu wa taala guddi gu jot nga ne man xaw ma jëmu yàlla nu mel xaw ma mën-mënu yàlla ak kàttanu yàlla nu mel bu ma ko jël di ko xiyaas di ko natt ci jaam ñi nga xam ne dañoo tële am ay contrainte yu bari lool damay gën ne loolu lu am la ñenn ñu nekk ci àdduna bi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ak bu ñu mën a nekk heure boobu bu jotee ci ñoom xew-xew boobu dina xew ci ñoom ni ko yonent ma alayhi salaatu salaam waxee te bañ a dugg ci détails ak waxu yenn mutakallimuna yi wax ci bëgg a dàq chaque fois di indi ay contraintes yoo xam ni ñun doomu aadama ñu la concerné mais mënoo koo jël di ko jëmale ci yàlla ndax lii ñun du du yàlla loolu bu ko nit ki xamee kon dina noppal boppam ci loolu ci bëgg a wax ne jamono ju nekk am na ñu nekk ci heure boobu ci àdduna bi xanaa kon yàlla saa su nekk day nekk foofu léegi kon jamono ju nekk am na koy jullil yàlla te yonent bi alayhi salaam nee su nit ki waxee yàlla ne ko alhamdulilahi rabbil alamin def naa sama jaam tàgg sama jaam sant na ma sama jaam tàgg na ma bu waxee maaliki yawmi diin sama jaam jox na ma sama sama cër iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in lii sama digganteeg sama jaam la bu fekkee da nga wax loolu dangay ngay dugg ci yu bari yoo xam ne bu baaxoon dañ ko dàq ndax bu dee da yàlla mi ngi xam ci lu jaam ñu nekk jamono ju nekk ñaata nit ñoo nekk ci àdduna bi jamono ju nekk ak ci la nit ñi di nekk naka la ko yàlla mën a xamee jamono ju nekk nit ñi ñu ngi julli di wax ak yàlla yàlla di leen tontu jamono ju nekk am na ñuy xettaliku yàlla am na ñuy ñaan yàlla am na ñuy soxlaal yàlla kenn ku ci nekk yàlla dina wuy ci jamono danga ko soxla la nga soxla loolu yëpp mën-mënu yàlla kon boo bëggee dugg ci règle yooyu noonu wàllu rationalité ci lépp nga bëgg ko delloo ci doomu aadama bu limité bii chaque fois ci ay erreur ngay dugg voilà moo tax kon genre yooyu ay ay waxu loolu naka la mën a nekkee jamono ju nekk am na ñu nekk ci waxtu boobu xanaa foofu lay nekk na muy wàccee xamuloo ko gëmal ne yonentu yàlla bi alayhi salaam moo ko wax ñu saxalee ko noonu dañuy wax ne yërmande mooy wàcc ndax yërmande yàlla jagleelu ko heure boobu yërmande yàlla waxtu ju nekk wàcc kenn jagleelu ko heure boobu te yërmande yàlla du wàcc naan kan moo may woo ma wuyu ko kan moom may ñaan ma may ko kan moom may jéggalu ma jéggal ko yonent bi alayhi salaam def ne yàlla bu wàccee ci waxtu boobu danaan jaamam ñi heure boobu heure ñaan la mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ci aaya ba ne wa quraan al fajri inna quraan al fajri kaana suhud boobu ñenn wax nañ ne heure boobu dafa dend ak heure bi yàlla di wàcc ñenn ñi ne mooy suhudul malaika mooy malaaka yooyu nga xamante ni moom la waxoon ne yataaqabuuna fikum malaaikatun bil layli wa malaaikatun bin nahaar ay malaaka dañuy ay ayloo ci yéen ñii di ñëw ci guddi ñii di ñëw ci bëccëg heure yi ñii di ñëw ñeneen ñi di dem mooy heure fajar ak kon bu ñu ñëw fajar gi nit ki di julli di jàng alxuraan day fekk ñu teewee ko moo tax mu ne inna quraan al fajri kaana mashhuudan waaye lu ci mën a am nit ki daf ko war a gëm loolu saxal ko gëm ne loolu mën-mënu yàlla la màggaayu yàlla lu subhaanahu wa xelu doomu aadama lottu na ci peeg loolu ni mu lottee ci peeg jëmmu yàlla lu yàlla mel li yàlla def lépp naka la ko defee ak naka la ko mënee nit mënu koo xam bu ci doomu aadama xuusee ci benn xel bi ci benn xalaatin bi ci lim ko yóbbu mooy weddi yàlla mooy science moderne bi nga xam ne lépp ci ay limitam la sukkandiku ba weddi yàlla maanaam dafa jël ay limitam science moderne bi lan la def limitam mooy limitu doomu aadama la jël def ko mu nekk ay vérité scientifique yoo xam ni lu ko génn mënu cee dugg rek kon loolu amul lu dëgg loolu nekk njuumte bu rëy rëy rëy rëy parce que ñàkk a mën a cerner dara ci sa xel tekkiwul ne loolu amul day wane rek ne sa xel dafa limité loolu lay wane comme na ko alimaam ibnul Qayyim rahimahullah di waxee ñenn ñi dañuy jaawale diggante lu xel ba noppi xam ne lii mënul nekk amul xel bi dàq ko ko rejeté ko ak loo xam ne xel mënu koo peek mënu koo cerné dëgg dëgg xam naka la demee àdduna bi ñuy dund rek bari na fi loo xam ne suñu xel yu gàtt yi mënu koo comprendre dëgg dëgg ay phénomènes yu bari ñu ngi fiy xew ba léegi mënuñu koo xam voilà mais science moderne bi am na prétention bu toll ne gëmloo na ñu koy jàng ne lépp xam na ko jeexal nañ lépp maîtriser nañ lépp ci àdduna bi mais c'est faux voilà li ñuy wan ci kaw maanaam li ñu xam ci àdduna bi matul sax un sur milliard voilà composition suuf rek suuf lu ko composé ak nature ak naka la composé woo ba nekk ay doom ni mu mel ni suuf si rek grain yi nekk nii si scientifique yi mënuñu ko décortiquer xamuñu ko suuf rek suuf ndox boo ñëwaatoon ci ndox nga jël ndox dëgg-dëgg ndox mooy lan ndox matière bu doy waat la boo xam ne kenn comprendre ndox du ay matière la yoo xamante ni indestructible kenn mënu ko yàq kenn mënu ko fay jële danga koy kii mu dem mais de mi ngi fi ay mbir yu doy waar yoo xamante ne àdduna bi ni mu tëddee phénomènes yi ni ni muy doxee ak yi ñu gëmloo nit ñi ci planète yeeg gëmloo ko nit ñi ci nature bi liñ ci xam lu néew a néew la géej gi liñ ci découvrir ak liñ ci xam lu tuuti la même buñ jógee seen documentaire yi ci seen chaîne de documentaire chaîne de propagande yi ay National Geographic ak tegal lay documentaire di la wax ci benn façon bi da yaakaar ne ñi dañoo jeexal àdduna bi wala ñoom àdduna bi biñ koy sàkk fi la leen fekk di la wax di la wax ba wax loo xam ne ay milliards daa yu kenn xamul lépp ay wax yu ñuy wax nii rek di extrapoler ak di spéculer di wax mais teguwul ci xam-xam malheureusement nag ñenn ñi dañ koy jàng jàppee ko ay vérité scientifique yoo xam ni lépp lu ñëw wuutee ak loolu ñu jàpp ne du dëgg amul mais loolu njuumte lu rëy a rëy ba tax na kon bu fekkente ne nit ki seetlu na loolu xam ko dafay reconnaître moom ay limitam te delloo lépp ci yàlla mi nga xamante ne bi subhaanahu wa taala mooy ki jiitu laata leen la fi di fi nekk te mooy kii mujj kon li yàlla xam ci suñ ci suñu mbir xam ko ci àdduna bi ni mu tëddee ñun loolu mënuñu koo xam ndax moom moo fi nekkoon naka jekk moo def lépp xam lépp nu mu demee ak nu mu amee ba yëf yi agsi fii ñu agsi buñ fi jógee itam mi ngi fi subhaanahu wa taala kon loolu yéen mi tekki rek mooy kooku moo war a nekk suñu delluwaay kooku moo war a nekk suñu référence ci lépp lu mën a doon kon tur yi ñu ngi noonu boo ko seetloo ay tur yoo xamante ni yëpp yu rafet la ay tur la yoo xam yu màgget la kon tur yi ñu ngi noonu boo ko seetloo yëpp ay tur la yoo xam ne tur yu yu rafet la boo ko seetloo yëpp ay tur la yoo xamante ni tur yu màgg la te lëkkale gi nga xamante ne lëkkale nañ kooku tamit ak ni ko yàlla lëkkale ci comme li ñu wax sànq ne ne huwal awwalu wal aaxiru mooy ki jiitu te itam mooy ki mujj te itam mooy ki féete kaw te itam mooy ki nga xamante ni moo gën a jege loolu kon euh, dafay wan jàmbi bi na ko bul déggee mukk ci jiitoom ne kon mujjul wala nga dégg ci féete kawam ne kon jegewul wala nga dégg ci jegeem ne féetewul kaw wala nga dégg ci mujjam ne njëkkul bul ci bul ci déggee benn ci yooyu luy dàq ba ca des ndax yépp moom lu sax la ñeel ko moom yàlla subhaanahu wa loolu kon di wane matu borom bi subhaanahu wa taala moo tax kon boo waxee ne mooy al ali ne moom ak al kabir mu lëkkale ñaari melokaan yooyu mooy olu bi tawe gi waaye màgg gi nga xam ne moo tax tamit mu jege loolu mooy wane li ñu wax sànq ci ixaata bi mooy ndar képp bi nga xam ne yàlla ndar nañu képp xoolal mbindeef yi nga xam ne wax nañ ko rek ne yàlla sàkk na ko ni mu toll ci ñun te du dara fa yàlla subhaanahu wa taala lan lañu suñu boroom subxaanahu wax taala wax wama qadarullah xaqa qadarihi wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyaama wassamaawaatu matwiyaatun bi yamini mooy ne suñu boroom subxaanahu wa taala yowma alqiyaama dafay jël asamaan yi lem ko teg ko ci benn baaraam jël suuf juróom suuf yi lem ko taxañ ko teg ko ci benn baaraam di wax ne moom mooy buur ana ñu doon buur buur lu ci àdduna waxul sax ci loxo ci baaraam la wax ci baaraam la yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu màggaayu yàlla rek lay wane ci na kon mbindeef yi tekkiwul dara fa moom subhaanahu wa ci tuuti lu insignifiant la ci kanamu borom bi subhaanahu wa yàlla sàkk na ci ay mbindeef loo xam ne yoo xamante ni àdduna bi lu tuuti la lool ci ñoom lu xat la loolu ci ñoom kon moom jëmmam nu mu toll ci màggaayam moom rek moo ko xam subhaanahu wa taala loolu yëpp bu fekkee jaam bi teewlu na ko dina tax mbindeef tu tuuti ci moom mbindeef doyodi ci moom dina tax mu def jubluwaayam dëgg-dëgg yàlla bañ a jël ay mbindeef def leen ci digganteem ak yàlla ba ñu fàtteloo ko yàlla loolu bu nekkee ci xoolu jàmm bi màgg dëgg màggaayu yàlla boobu bu nekkee ci xolu jàmm bi dina tax mu def soxlaam bi nga xam ne mooy soxlaam yàlla subhaanahu wa jubluwaayam bi nga xamante ni mooy tax muy kër-këri di tax muy toog di taxaw di tëdd mooy suñu borom subhaanahu wa lenn bañ a teggi bëtam ci objectif boobu lenn bañ koo fàtteeloo jubluwaay boobu woo ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu teg foofu bëtam mbindeef bañ a rëy ci moom wala fees bëtam wala ñu wax ko ci luñ ko mën a wax ci lu mbindeef am ba mu fàtte màgg googu nekk ci yàlla ndax melokaan yooyu moom rek moo ko jagoo suñu borom subhanahu wa kon cër biñ ko war a jox warul am lenn ci mbindeef yi lu ko sax jege ak lu mu rëy rëy suñu bët moo tax yonent bi alayhi salaam loolu ma ko doon appuyer fu mu toll buñ ko musaana ñëw di bëgg a exagérer ci moom sax mën na leen wax leen lu ngeen xam man ab jaam laa rek bu doyee di ci jaamu yàlla yi lan moo tax mu daan wax loolu xam màggaayu yàlla xam ne yàlla mooy ki ki ñu war a màggal nit ñëw nañ sax benn jour naan ko anta sayiduna wabni sayidina moo ne leen as sayidullah yaay suñu sang di doomi suñu sang commencé bëgg a tàgg mu ne leen sang dëgg mooy yàlla nit mën nañ ko woowee sang naam ndax wax na ko ci ne bu nit eh, di wax kilifaam naan ko yow sama borom laa yaqulu ahadukum rabbi wala yaqul sayyidi wax na ne nay wax sama sang te bañ wax sama borom waaye foofu li doon dàq xam na ko alayhi salaatu wasalaam kon yar bu mel noonu moo war a nekk ci jullit bi moo mën a tax mu am tawxiid nekk kuy wéetal yàlla subhaanahu wa taala sori lépp loo xam ne bokkaale la yàlla nañ ko yàlla defal hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalaamu alaykum bismillahi rrahmani rrahim ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها